présidence de la République présidence colonel Colobane Sandaga résidence de la République présidence de la République palais de la République résidence du président de la République amoo demeure structuré la carte de plateau capitale de Sénégal construit en 1902 c'est vrai mu nekk la résidence officielle du gouverneur de la République de la le président de la République Abdou Diouf Karbé Deme Abdoulaye 2012 Macky Sall depuis 2012 mu ñëw fi ñamaar fi ñu xaar mbaax bu ko waree ba ko jot président de la République ko la war a ko la war a salaamaaleykum waaye neel président mu génnee ndogo yi nag mi ngi tardé na génne tàndarma ji ñu distribuer ko tas ko ci kër yi bu ko defee kenn ku ci ne. Eh, eh, eh, ci sëñ bi waaw waaw. bu xoolal fi ngay woote. nawatuñu ñu doon defal ndogal waaw waaw waaw waaw waaw Estade. ma ne weeru koor la nu ne. waaw waaw. damaa sonn nit ñi sax danoo sonn. pale bi ñëpp a sonn président ma ngay nelaw ñëpp a ngi nelaw. président dafa woo. dama ni ba ma ngay sax nelaw. ah dama ni léegi. ma man man li may li may laaj bariwul kay. waa da man wax gaaw sa yóbbante ma bind ko bu paree ma wax ko ko mënoo ko ma daal di coupé damay nelaw. li ma laaj bariwul datu korite kañ la. mu ne. korite kañ lañ ko jàpp kañ la dat bi. loolu rek laay laaj président a ni ma moo yor moo yor calendrier bi. moo tax ma koy laaj datu datu datu korité bi. ah man de xaw ma ko. ah eh? xaw ma ko de man. dafa am lu ma ci nar moo tax may laaj loolu. ma ni man nii xaw ma ko. xamoo ko. déedéet. nga ni xamoo ko. déedéet xaw ma ko. xanaa nekkoo pale. waaw naan waay yow naan na ci biir salle de bain bi boo fi nekkee nag. léegi euh, euh, nee ko date bi bu ko xamee na ma woo wax ma ko. waaw baax na di loolu ko dégg. moom bu ñëwee dinaa ko wax. parce ndax man ne ko woote nga fi di laaj datu korite kañ la. waaw waaw waaw waaw kay waaw kay ma ko ni ko ni ko papa Loum ne. datu korite bi kañ la ndax da koo bëgg xam sax daa am lu ndax da am beneen laaj bu gën a am importance ka boobu wala amoo ko. ah. ndax da am beneen laaj. ndax da am. beneen laaj. waaw waaw waaw am naa beneen laaj kay. ban dama ko bëgg a laaj moom fan la juddoo Fatick. oui ah. Fatick wa am ku ma ci weranteel mu ne ma président bu am la ma ne ko Fatick Fatick la dëkk léegi Fatick la dëkk wala wala Mbour. fu mu déedéet la juddoo. ah Pout. fan. Pout gii ci wetu Diamniadio. ah du de waaw ah waaw waaw waaw man kay naka jekk la. du waaw. ah waaw dëgg da kay nee ko. waaw koor geet maa ngi koy nekk président. waaw baax na babalu. na ma jox sama sama sama koor gi. sama léegi wuyu ma sama bi di koor. man ma damaa bëgg a dem nii ah, defar sama bopp xool sama bopp. ci biir dégg naa kii def déglu ministre la da koo jël. dafa ko dugg léegi votre correspondant peut-être. da